Mohamed ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy nuyu jaajëf jaajëf ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di euh, di la remercier di rafetlu sa xalaat di remercier itam ku ci mel ni Ndeye Seye merci pour les messages Moustapha Bodian merci c'est gentil à toi Moustapha après soo yoree sama numéro message ma j'ai j'ai quelque chose pour toi euh, maa ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante aussi jamono ji ñu seetaan moo xam ndax ca kër Mbaye Fall la ñu nekk sama xarit Ndeye Amé maa lay nuyu bu baax a baax moo xam Pikine Guinaw Rail euh, Parcelles Assainies Guédiawaye Golf Sud fu ay nekk ci Sénégal jamono ji duñ bàyyi xel waa Mbour leen am xaar ah, ngir bokk ci yomb na 77 ngeen di def 810 90 90 fàttali leen ni li nga xamante ni moo tukkee ci dialogue euh, national bi ak dialogue du peuple la ñuy waxtaanee tey bokk na ci ay ay. Euh, xëccanto xëccant xëccante laa koy mujjee laa koy mën a woowee diggante ñi nga xamante ñoo nekk ci camp présidentiel waaye itam ñi nga xamante ñoo fare ci euh, opposition bi société civile bi itam ñoom seen participation ñoo ngi koy euh, déglu ci waxtaan wi bokk na ci mbiri candidature président Macky am déet troisième mandat bi ñoom danañ ko nangoom déet ñi nga xam ne ñoo fare ci opposition bi ñoom lànk nañ kàndaare ne euh, fa ñu tegoon seen tànk fa lañ koy tegandi ba léegi président Macky Sall li mu waroon def ci ay mandat matal na ko waaye nag euh, dafa war a bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk jamono ji ci opposition bi di xëcc nguur gi ñëpp mën a samp seen candidat yi Ousmane Sonko ca la bokk waaye ñi nga xamante ni itam ñoom ci Benno Bokk Yaakaar lañ nekk ñoom nee nañ lépp lu laale ci Ousmane Sonko ñoom déet lañ cay wax ndax euh, nee nañ koo xamante ne bëggul bokk ci waxtaan donc la bëgg-bëggam nekkul waxtaan donc nañ ko bàyyi ci la mu nekk te turam ñu bañ ko faa daal di daal di yëkkati donc euh, lii nag nekk na loo xamante ne tukkee na ci dialogue bi Khalifa Sall ak Karim Wade ñoom itam jamono ji ñoo ngi wuti pexe ngir rek euh, def euh, ngir ñu xoolee nan la ñu mën a bokkee ci élection yu ñu dëgmal 77 810 90 90 salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. waaw sëñ bi na ngeen def. waaw alhamdulilah. doo ñu baal doo ñu baal yokk kàddu gi waaw alhamdulilah ça va na ngeen def waay. allo. waaw allo. waaw régie doo ma yokk may ma tuuti volume ndax euh, maak sama internet bi dégg-dégg bi dese naa neex. allo maa waaw maa ngi lay dégg sëñ bi foo ñuy woowee. waaw maa ngi wootee yaa ngi wootee Kolda. waaw waaw ah naka waa Kolda kontaan nañ ci ñoom waaye. allo ah, waaw ma ne naka waa Kolda ñun kontaan nañ ci ñoom. waaw waaw ñu kontaan nañ bu baax ci bu baax. ana ana ana seen maire bi El Hadj Mamboy waaw. waaw mbaa mu ngi liggéey dëkk ba rek. ah dani ñoom daal mooy <laughs> <laughs> ah, yow ma de ma ne mbaa moo ngi liggéey dëkk bi ah liggéey liggéeyu fi dara ah déet déet ah nag non non bul tax bul tax bul tax bul tax bul tax yeneen gars ne da ngeen a contre maire bi nag ma ne ma kan contre ko dafa mais li ñu gis la ñuy wax rek allô oh je pense que y petit souci avec le réseau allô allo waaw. allo malheureusement kooku kooku rëcc na donc maa ngi lay ñaan yow mbokk mi doon woote Kolda soo mënee dugaat rek vraiment. ndax euh, fi nga nekkoon am na solo c'est aussi c'est ndax euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk euh, ci région yi nga xamante ne c'est dans le sud wala dans l'est et ouest ñoom ñëpp ñuy extrême ex extrême est plutôt ñuy bokk ci waxtaan ndax ñu ñuy wax li nga xamante ne moo xew ci seen i gox ak goxaat yi ndax comme on dit des fois quand même régions sont un peu isolées suñu jëlee kaaw Matam ndax keroog bi ñu fi wax ne foofu la ñu affecté ki nga xamante ne moo di ngañ Demba Touré loolu jur na coow lépp li war ci en infrastructure ak liggéey am na fa donc du ñu ko jàppee sanction ñu jël mbokk mi nekk ci buum bi salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw maa dugaat. waaw merci merci dama doon naaj ndax Mambo Diaw moo ngi liggéey dëkk ba nga ne ma ñoom daal liggéey bi seen poste la ñuy liggéeyal rek. Ah, ah ah ah déet waaye te pourtant a ko fal de. ah mais il faut daay nga rek fii moom ñi ñi sax li ñuy voté. <laughs> ah déet waay. Eh, waaye man am na ay mbokk yu nekkoon daal de bàyyi bàyyi li wax. ah mais dëgg la damay xuloo ak yow <laughs> dañuy xuloo de. ah non jaarul ñuy xuloo sax. ayca <laughs> bismillah ci waxtaan wi am na solo. alors. oui ma ne bismillah ci waxtaan wi. waaw mais dialogue amu fi parce que booy dialogué da ngay dialogué ay ay ak ay citoyen quoi mais Khalifa Sall ñoom ñoo ne dafa perdre ay droits civiques am yëpp mhm. n'est-ce pas. Mm kooku lan la mën a waxtaan ci mbiru réew mi koo xamante ne amoo droit ci biir réew kon léew lan lan nga mën a waxtaan ci mbiru réew mi mhm. ñi war a waxtaan ci mbiru réew mi mooy ñi ñi nga xam ne ñoo am citoyen am droit civique am droit voter mhm. ah, am am droit nekk électeur am ñu war leen a mën a fal mhm. wala déet ah d'une part ah man de yow laaj est-ce mais mais li ma la bëgg laaj li ma la bëgg a laaj mooy xam nga dialogue suñ ko wootee maanaam mooy waxtaan waxtaan ngir wut solution waxtaan ngir ñu gën mën na defar euh, jubbanti jubal. solution yi daal wax wax waxtaan ah? boobu est-ce du moo tax aussi ñu convaincre ñëpp li nga xam ne ay acteurs lañ sociaux politiques euh, culturels même religieux ñëpp ci biir pour ñu xool waxtaan wi na lañ ko mën a mën tëralee ngir njëriñu réew mi. loolu buñ koy def mooy naka la ñu war a mën a doxalee réew bi yeneen fànn mais du nii. lii ñu war waxtaane nii assemblée nationale moo ko war a waxtaane dégg naa dëgg mais du ñoom ay quelques nit kese ñoo ko war a ma ko dégg naa dëgg ah ma ne dégg naa dëgg wala déet waaw loolu moom foofu moom nangu naa ci à cent pour cent nit du woote ma ma leen nangu naa waaye bii moom nangu naa à cent pour cent ah, nga la assemblée nationale effectivement lañ ko lañ ko waroon lañ ko waroon defee très bien mhm. mais léegi su fekkee ne ñoom ay parti politique ñooy a taxaw pour mën a décider ci li war Eh, doxal réew mi mhm. ah, ci seen seen mbiri intérêt en gis nga ko ñii nee nañu eh, article xaw ma pour ñoom ñu mën a bokk ñoom ñoom ñoom seen biir quoi mhm. léegi nag ñeneen ñi seen yoon nekku ci mhm. ñoom amuñu ñoom yoruñu voix peuple bi quoi ay voix parti la ñu yor seeni militant la ñu yor seeni seeni voix quoi mais ñi yor voix wu askan wi mooy assemblée nationale mooy li daal bon état bi daal ñun ñun ñun empire lañ yor quoi mais yoruñu état en réalité. waaw léegi ce que l'empereur veut c'est ce que l'on fait ce qu'on applique quoi. Mhm. waaw mais keneen ku indi sa xalaat wala say kii moom amul solo quoi. Mhm. waaw Sénégal nag pour nga wax fi dëgg moo metti mhm. hmm? mais li ndaw soosu wax ay guerre civile ak ay mais li Alioune Tine waxoon c'est la réalité gis nga yenn dëkk yu bëri looloo ko taal. beaucoup l'avaient même ignoré ça mais prévention man mii di wax ak yow man je suis militaire du ma ko dama lay wax benn affaire de j'ai été Rwanda j'ai été au Libéria muy betti mm-hmm. kon dara umpuma injustice bi muy doxee ñun nii actuellement nii ñoom moom lañ doon doxee ba seen dëkk yi tàkk waaw du amul du du armée du police du gendarmerie benn bu mën a euh, euh, kii nu contenir population mën nga guerre ak euh, sa ennemi beneen dëkk ak dëkk amul problème que mais bu nekkee guerre seen biir la yow sa frère mën nekk sa éliminé sa ennemi noo koy xamee pourtant na la jox nga lekk na la jox nga naan na la jox lépp mais bu lay empoisonné doo ko yëg hmm? ay ay ay boo jëlee boo jëlee koo xam ne par nga ne da ngay corrompre juge wala da ngay pour policier wala da ngay corrompre homme de tenue par mais ça devient très dangereux parce que yow bu fekkee ne un milliard nga koy jox pour moom mën la couvrir wala defal la li nga bëgg mhm. mais bu gisee keneen ku ko jox cinq milliards yow mu rey la yow ah, ah. on dirait c'est ne pense pas quoi xam loolu mooy ni nag yeneen dëkk yi ñu gis nga Rwanda noonu loon parce que yeneen pays ñooy ñëw di leen armée di armée réew ci suuf ñuy xeex ak état mhm. ay ñu ko yi euh, organisation état yi mhm. ñoom ñoo leen embargo contre les armes mhm. ñu dem ba Rwanda amatul munition seen armée bi amatul munition amatul dara am nañu ay char de combat dañuy daw ba char bi essence bi jeex ñu gaare ko wàcc seen oto daw hmm? loolu gën a métti bien sûr amatuñu munition bu ñu tiire pourquoi te rebelle yaa koy am parce que puissance yooyu ñoo leen di ngemb hmm. noonu lag lay demee Sénégal demee mënuñu cee rëcc hmm. non du ay ñii di wax naan ay ñaaru mag ñekk ci tamit Lat Dior bi mu fi Lat Dior bi muy dee Cheikh Ahmadou Bamba muy dund waxuma laa nag bu Cheikh Ahmadou Bamba nekkatul waxuma yore na yeneen ñu nekk ci dëgg moo ëpp solo mhm. Sénégal daal bu nekkee ci dëgg ñu am jàmm mais tant que nekk ci dëgg jàmm moom dañ koy waxtaan rek di ko dégg mais mais duñ ko mës a am mhm. te loolu nag moom dama koy xam naa ne ñoom ñu may déglu dañu xam fi may waxee mhm. waxuma ko nag ngir leen mais dama koy wax pour prévenir daal comme nii gars yi di prévenir avant li di ñëw xëy na ni ñaa ngi wax di wax di wax mais ba léegi ñoom ñi ngi minimiser non ay gendarme yi dañuy sonn comme ñëpp policiers yi dañuy sonn comme ñëpp militaires yi dañuy sonn comme ñëpp te li ngay gis ni moitié population bi jeune yi ngay gis ni juste bëri ay anciens militaires lañu ay anciens hommes de tenue mhm. est-ce que yaa ngi mhm. kon li ñu mën moom la gars yi mën li gars yi xam moom la ñu xam mhm. kon pour déjouer leen wala pour attaquer leen def def leen lu merci dafa Sénégal moo bëri yërmande rek mais sinon kon waxuma la ci coté force de l'ordre c'est am moor yu bëri Hmm? mais yàlla nañ ci yàlla musal daal. amiin amiin merci merci merci merci merci xalaat bi rafet na xalaat bi rafet na merci. merci ñoo ngi lay jaajëfal nga nuyul ñu waa Kolda bu baax a baax euh, ñëpp ñi nga xamante ñoo nekk foofu moo xam ah waa waa Bagadaaj yi sama su fa demee am sama grand maa ngi koy nuyu doo waxtu bi nag waaye moom xam na xam na boppam euh, moom nga xamante ne moo ngi foofu noonu def liggéey bu am solo ca euh, ca ca CM ak lycée ba fa nekk ñoo ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax di xaar ay réaction ci 77. 810 90 90 Moussa Bodian envoie juste un message sur le numéro WhatsApp de de l'émission su paree mën naa la tontu merci di ko nuyu waat bu baax baax nuyu ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñoo ñuy bàyyi xel jamono ñi di seetaan euh, seen émission kàddu askan wi di émission bi nga xamante ne moom la ñu jël daal leen koy jagleel yéen ñi di suñu ay mbokk internet ngeen ci mën a réagir di joxe seen xalaat par rapport à la situation actuelle du pays ah, jaaree ko ci ah, waxtaan yu am solo yi nga xamante ne moom lañ leen di indil tey nag lañ ci tànn mooy ah, dialogue national bi ñenn ñi sax def ca du dialogue politique la ndax wàllum politique rek eh, rek lañ cay waxtaanee bokk na ci yenn ci ay dogal yi nga xamante ne génn na ca mu nekk leen la xamante ne ñu bari rafetlu nañ ko waaye la ca gën a ëlëm nag mooy wàllum troisième candidature bi nga xamante ne eh, ñi fekk ñi fare ci kujje politique ga rawatina ñi nekk ci opposition bi bëgguñu président Macky Sall daal di cay jëm waaye ay farandoom ñoom fa ñu taxawee woon ne président Macky Sall yoon may na ko mu nekk candidat ci atum 2024 te gisuñu lu koy waaye mën a tere nag jur na euh, fantasiro seen biir waaye nag lu jëm ci wàllum Khalifa Sall ak Karim Wade daanaka waxtaan yee ñoo ngay dem ba ñoo ngi xool wan pexe lañ mën a teg ngir ñoom ñaar ñi lee ci élection yu ñu dëgmal ci atum 2024 ñu mën a bokk bokk na ci article L29 ak l bi nga xamante ne euh, gàllankoor na leen ci waxtu wi ñu toll waxee Ousmane ko nag jub na fa waaye nag euh, ba léegi nag amul benn solution jëmee ci ay mbiram ndax nee nañ moom mele lee bokkul ci dialogue ba donc waxtaan woo xamante ne yow bokkoo ca donc munuñ la caa dimbali donc entre autres raisons loolu loolu la ñu rek daal di daal di daal di wax ban xalaat ak ban jàngal lañ ca war a def ndax waxtaan wi gën nañu ko waroon mën a euh, ñoŋal wala yaatal sax ba askan wi yëpp mën cee mën cee bokk li la itam xalaat la bu rafet bi nga xamante ne mbokk internet bi sànq jot na ko àddu salaamaaleykum. maaleykum salaam siyaar naa leen. delloo ziar bu wér.